auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi yemoon bi passé min ajali zalika katab min ajali zalika maanaam min ajali zalika foo ko dégg rek am na yu ñu waxoon yu baree baree bari kon gannaaw loolu yépp katab naa bind naa décrété na moom yàlla ala bani israil ci doomu yankooba ya mooy pour l'humanité nag parce que loi bi pour l'humanité la day wëy ànd na xoon mbir tey mbir man xatal nafsan ku rey bekken bi xayri nafsin bekken bu nga xam ne reyul loi rey ko waaye nit a koy rey oldub man yéeg sàcce yeeg dem rey nit aw fasadin fil ard wala ngay dox ci kaw suuf di yàq di di di sàcc di jël les deniers publics fa ka annama yow xatala rey nga naasa doomu aadama yi jëmaan ñëpp nga rey rey nga ñëpp wa man ahyaaha ku dundal kenn yaatu na fa ka annama na nga xam ne ahyaa naasa dundal nga jëmaan doomu aadama yi fii lañ taxawoon qaala allahu taala laqad jaat hum laqad jaat hum rusuluna bil bayinaati summa inna kasiran minhum baxda dalika fil ardi la musrifun suñ boroom tabaraka wa nee na walaqad jaat hum dikk naa leen rusulu naa suñuy ndaw ay ndaw yu daan ñëw ay yonent bil bàyyi naati ànd ak ay muhjizaat ay muhjizaat waaw miracle yu leer nañ suma topp inna kasiran lu ëpp ci doom aadama yi minhum ca ñoom baax da daalik gannaaw miraakal ya ñu ak yépp terewul fir at dañuy wër si kaw suuf la murs la musrifuun nekk ay yàqkat yu mag a mag a mag a mag a mag qaala allahu taala innama jazaau allazina yuxaaribuuna allah wa rasuluhu wa yasawna fi ardi fasaadan أن يقاتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم aay bi suñ tëbee rek firi ko nii moom léegi dal na occidentaux yi seen jàkkee la ñuy toog ñu financé leen ñuy firi tafsirul quran ya tax xamuñu lu xew xamuñu contexte aay bi lan moo toxoon yàlla waxe nii di jéem a taxal jullit yeeg jullit nii lañu mel dañu sàng ne rek yu kenn xamul fekk xamuñu lu xew xamuñu asbaabu nuzul bi bu ñu jëlee seen téere français yi waxal nga ne firi ko noonu xamuñu lu xew gis nga mbir mi xew fii ba tax yàlla waxe nii santaas bi amee nii ku ko dégg di nga xam ni jaadu na ndaxte dafa amoon jamono bu nga xam ne dafa am lu mel ni gal yaa xam gal nga koy tudde walla peste day dañu doon génn seen yaram lu nga xam ne kenn xamul lu mu doon feebar bu bon ak sëqët muy rey ay nit ñu trouvé nag ni sallallahu alayhi wa ku ñëw ci moom dafay yabal day booleek ay saaba ñu yóbbu leen ca gétt gétt gétt gétt gétt gëléem yi ca àll ba buñ demee foofa soow soowum gëléem ma ñuy naan sawum gëléem ma ñu koy diwoo yenn saay sax dañ koy naan ñu bari di fa wér di fa feebar ñu bari di fa wér seen feebar boobu wér pelek yàlla moom moom la kenn xamul mbiram nu ko neex fu ko neex la koy jaarale mu am vingt personnes yoo xamee ne yi ñoom dañoo feebar ba ñëwee ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu booleen ak saxaabaam comme lañu daan def ñu yóbbu leen ci àll ba bañ demee ñu nekk ca géttee naan ca soow ma diwu ca ba wér plek bàyyi ba guddi ñu bett sàmm ya rey leen ñu xeex ak ñoom ñenn ña dee ña ca jot rëcc ñu naan ñett la wala nangam dugg ci àll bi daw ñëw na war wax ko rasulullah sallallahu alayhi ba mu ko ba mu leen ba mu ko waxee bañ ko waxee rasulullah sallallahu nag mooy indi prime mooy moom ngay dégg santaasu aaya bii nag ci nga koy mën a dégg moo tax yàlla waxee nii yow léegi su fekkee ne yow xamoo lii nga tëb rek yow sa téere fii naan alxuraan ni alxuraan ni alxuraan dafa juste ba ñu waxee loolu rek yàlla wàcce santaas bii sallallahu alayhi wa sallam nag ba mu jàngee aaya ba pare def leen joxoñ rek ne jubal leen barak sàmm ak bëri sàmm jàpp leen leen rëccaguñu génn guñu frontière yi génn guñu ah, waaw ñu dem jàpp leen indi leen yàlla ni innama na ngeen yëg ni jazaawu payu lazina gaa yooyu nga xam ne yu yuxaariboona allah dañuy xeex ak yàlla wa rasulahu ak yonent bi salaa salaam aw na ñuy dox fil ardi ci suuf si fasaadan pour yàq rekk moo leen tax a jóg léegi nag an yuqaataloo man ngeen leen rey waaye du ngeen rey ñépp ndax dafa bëgg a joxe benn euh, exemple an suwaana an yuqaatilu euh, ngeen rey ngeen rey leen wala ngeen rey lend de si ñoom ayu sàll boo daaj ñenn ci ñoom ñii da leen di rey ñi ñu daaj leen aw wala ñu nga xam ne tuqataa dañuy dagg ay diihim seeni loxo wa arjuluhum ak seeni tànk min xalaafin min xalaafin maanaam dañuy dagg loxo ndijoor bi dagg tànku càmmeñ bi maa ñu dagg tànku loxo càmmeñ bi dagg ndijoor bi min xalaafin bu loolu paree ba loolu paase nag aw yun faw ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen dàq leen nag aw yun faw fil ard maanaam nge nge ngeen dax leen interdire leen seen suuf nga xam ne loolu day wane day wane ñoo ñu def noonu ba pare ñu war a dem nag ci yeneen i dëkk nga xam ne léegi dañ leen exile bu ñu demee sa seen gémmiñ daañu nettali ñenn ñi day dañ leen rey ñi ñu daaj leen ñi ñun ñii nii lañ ñu def su ko defee mu nekk arme de dissuasion c'est normal yàlla ne na zalika li kat lahum ñel leen ñoko sàkku lahum ñel leen hisjun gàcce gu reuy fi dunya ci aduna gi fi dunya ci aduna walahum dan leen ñel fil akhirati bu ñu ñëwee yomal xiyaam nag asaabu mbugal azim reuy rëy yàlla ñel yàlla musal ci boobu kuréel illa taaboo taabu min qabli an taqdiru alayhim fahlamu anna allaha ghafurun rahim ulama yu ñu ngi weerante ci biir aaya bi nga xam ne yàlla moo bari yërmande illa lazina lu dul gaa yi nga xam ne taabu tuub nañu min xabli jëkk an taqdiru alayhim bi sentence bi génnee avant muy dal ñoom fekk tuub nañu balu jéggalu fahlamu na ngeen xam ne anna allaha nak yàlla xafurun xafurun jéggalaakoon la rahim borom yërmande la nga gis ni nga gis ni dinaay seetaan yenn saa yi si débat télévis débat contradictoire télévision nga gis tubaab yi bële bañ ko génnee duñu génn mukk bii te nga xam ni yàlla yërmandeem kenn xamul mu toll yërmandeem moo gën a yaatu boo gisee muy defee noonu si circonstance yenn yi noonu rek la parce que band yi dañuy jéggi dayo benn jéggi dayo bi nga xam ne noonu la ñu mën a defeek ñoom yaa ayyuhal lazina amanu yéen ñu wax ne gëm ngeen yàlla ba pare taqullah na ngeen ragal yàlla wabtagu na ngeen sàkku ilayhi jëm ci moom alwasilata alwasilata yaatu na xam naa man di sama gis-gis wasilata gaay daañu ko jéema woon daale côté bu ne waaye sëriñ bu baax a ci gën wajaahidu ngeen def effort fii sabilillah ci yoon yàlla la'allakum tuflihun la'allakum ndaxte leen tuflihun a ngeen sowe àdduna ak àllaaxira xam nga suñ boroom tabaraka wa bu ne yaa ayyuhal lazina amanu mooy ki ki nga xam ne euh, musulman la pas-pas bi wér na ci moom mu nekk ni ñu ko xamee ci islaam bu demee nag ba nga xam ne parce que yaa ayyuhal lazina amanu taqullah taqwa ba ba pare nag léegi taqwa bi fii xaafu nga ragal rek mbugal mag yi demee noonu waaye wopp taqu ngeen sàkku ilayhi jëm ci moom alwasilata parce alwasilata maa yuqaaribukum ilayhi min minataati taati hii maa yuqaaribu maa yuqaaribukum ilayhi min taatihi maanaam lu lay jigéen lu lu nga xam ne moom ngay jafandu moom ngeen di jafandu maa yuqaaribukum ilayhi lu leen di jigéen loo min taatihi ci gën a mën a topp yàlla wa jaahidu ngeen def effort fi sabilillahi li ihyaayi diinihi pour mën a taxawal diine ji kooku nag moo tax ma wax ni danga dégg ñu la kii lii la jël lii la topp nangam waaye sëriñ bu baax à nawi avis personnellement moo ci gën waaw ñun nag suñu wasila moom mooy Cheikhul Xadim Cheikh Bamba radiyallahu taala taala an nafana allahu barakati faqat inna lasina kafaru ñi weddi law anna lahum bu ñu amoon maa fil ard li ne si suuf jamian lépp lépp lépp ñu moom ko moom ko wurus ak ngalam ak maanaam inna lasina kafaru yomal xëyab lay wax koon bu ñëwee foofu inna lasina kafaru gaa yi weddi law anna lahum bu ñu amoon maafil ard li na ci suuf ci jemeen lépp wa misluhu ak duubalu loolu maahu ànd ak ñoom ñu moom ko liyaftadoo pour ñu jot bihi ca alal jooj ak àdduna min azabi yowmil xiyaamaati pour ñu ñu jote ko mbugalum yowmal xiyaam kenn duñ leen bëggul joxe loolu rek maa tuq bi la yàlla na du ma nangu minhum ci ñoom dara walahum ñeen azabu mbugal alim bu mag a mag a mag a mag yuriduuna yuriduuna daañu bëgg an yaxruju pour génn mina naari safara si wa déet ñoom bi xaariji ñuy génn min xaa si safara sa de walahum dana leen dana leen fa ñeel asabu mbugal mu xiim mu sax mu dëkk mu sax sax dàkk dàkk dàkk dàkk wasaariq wa wasaari wasaariqu wasaariqu wasaariqaatu xàllaaw taala suñu borom tabaaraka wa taala nee na wasaariqu sàcc bu góor wasaariqaatu ak sàcc bu jigéen faxtawoo nañu dagg ay diihuma seeni loxo sàcc ba nañu dagga loxom bu góor boolu bu jigéen jasaan mu di ak payam bi kasa baa sa la mu sàkku nakaalan mu nekk lu ñuy nettali lu ñuy xàmmee jóge ci yàlla minallahi jóge ci yàlla lu yàlla joxe ordre la waaw wallaahu yàlla azizun aji tëdd ci nguuram la xakimun tëral dana tëral atte fa mu yelloo famantaaba ku tuub min baax di zulmihi gannaaw ba mu tooñee ba ñu dagg loxo ba pare wa aslaha mu jéwénal na commencé changé di jubal fa inna allaha naka yàlla yatuubu alayhi dana ko jéggal bàkkaar ba mu ko ni du dundam inna allaha naka yàlla xaafurun jéggalaa kon rahim borom yërmande la xanaa xamu leen ni annallaaha naka yàlla loxoo ñeel na ko mul ko sama samaawaati asamaan ni juróom-ñaar wala ardi ak suufu juróom-ñaar moo leen moom yaa ko moom de yu azibu dana mbugal man yashaaw ku ko soob waa yaxfiru dana jégal li man yashaaw ku ko soob walaahu yàlla ala kulli shay'in lu mu mën doon xadiru aj àttan la ko yaa ayuha rasulu eh, yow sama ndaw li laa yuxzinka bul triste waay bul triste laa yuxzinka bul bul triste bul am ñagg-ñagg naqar si biir xol bi na gaa yi nga xam ne yu saar yoona ñu ngay jëkk ñu ngay jëkkante fil kufri ci weddi min allazina ci gaa yi nga xam ne xaalu wax nañu ne aman naa gëm nañu bi afwaahim seen làmmiñ rekk walam tuumin te gëmul xulubuhum seen xol ya bu bu mu la naqare waay yow seydina ahmad salaa salaam mu la naqarit ak jamono bii ak gaa yi nga xam ne haadu ñoom de ay yahud lañu sama ñu ngi déglu lil kasi bi ay fen sama ñu ngay déglu li xawmin aaxarin ñeneen la ñuy déglu lam ko ñu ngi fii toog waaye dégluwuñu la ñu ngay déglu ñeneen ñoo xam ne masu ñëw ñëw sax sa assemblée lam ko waaw ñële la ñuy déglu waaye ñu ngi fii ndax fiq yàggoog yu xaarifuuna al kalima min ba'di mawaadihi yu xaarifuuna dañuy wëlbati al kalima baat min ba'di mawaadihi sujet boo wax ñu changé ko loo wax ñu wëlbati wax ja jëme ko laneen ba sa wàll dangay waaru ci yàlla sax ci laa ilaaha illallah yaquluun ñu ngi naan in utiitum buñ leen joxee xaaza lii fa xusuuhu ngeen jàpp ci wa in lam tutawhu buñ leen joxul nag lu mel ni liñ leen wax faxzaroo bañ leen waa léegi lu muy tekki fii ñoom ña nekk ca gannaaw ñooy yabal seeni gaay ne leen la ngeen leen déglu bu ngeen ñëwee ngeen wax ñu waaye suñ leen waxee lu mel nii ngeen nangu approuvé suñ leen waxul lu mel ni nag bañ leen wa man yuridillaahu fitnatahu yàlla ne na ku ma nar defal ku ma nar ku ma nar a teg fitna fitna maanaam coono musiba falan falan tamlika kenn mënul loxo di ñeel yàlla min falan tamlika kenn mënalul yàlla dara loxo di ñeel kooko mu nar a teg fitna minallaahi ci yàlla seyaan dara kenn mënalu ko dara dara ulaayika ñooñuy gaay allazina ñooy gaay yi nga xam ne allazina ñooy gaay yi nga xam ne lam yuridillaahu yàlla namul an yu taahira qulubuhum yàlla neen yàlla nee na ñooñu dama nanguwul euh, raxas seen xol seetal seen xol lam yu yuridullaahu an yu taahira qulubuhum yàlla neen dama nangul seetal seen xol dama leen bàyyi noonu ñoo ko salteel ba mu salte ma bàyyi ko noonu loxum ñël na leen nag fii duniyaa ci àdduna bii xis yu gàcce li ñu mujjaam gàcce gu rii ndaxte ñoom boo toogandoo ñoom di wax baat dañu koy wuti wut yeneen i allié taxal la ba ba yow mi setoon wicc ñu ñu bëgg la taxal waaye yàlla ne na du du du ma yem ak ñoom noonu fii duniyaa xiis ñu dina leen teg fi gàcc gu rëy rëy rëy waaw walum dana leen ñeel buñ ñeewmal xam azabun bugal azimun ñu ngay déglu lil kazibi ci ay fen ndax la ñuy déglu fa lépp ay fen la rek wax dëgg yàlla yow yaa ne ci dëgg samaona lil kazib ñu ngay déglu ay fen akaluun ñu ngay lekk li suxti ñu ngay lekk ger rek ger rek ger rek ak corruption la ñuy dunde ger ak corruption rek hmm? akaluun li suxti ger ak corruption rek la ñuy dunde fayin jaawoo ko buñ ñëwee nag ci yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam faxkum leen àtte baynahum seen diggante aw ahrid anhum wala nga wan nga bañ leen àtte bàyyi leen waaw ndaxte boobu état islamique am na dana ko leeral sax ci kanam jarul may jiitu li wax nii faxkum baynahum àtte leen aw ahrid anhum wala nga bañ leen àtte wa in tuxrid anhum soo leen wanee gannaaw bañ leen atte falan yadruuka mënuñu laa lor seyaan ci dara wa it xakkamta soo décidé ba nar leen a atte nag faxkum atte leen baynahum seen diggante bil xista nanga nga màndu màndu de màndul tranchel ci digg bi bul xool ku ku mu mën a doon inna allaha naka yalla yuhibbul muqsitin yalla ne ma bëgg ku mandu ku ku juste nga xam ne li muy àtte net la koy àtte wa kayfa wa kayfa nan sax wa kayfa yu nan lañu ñëw ci yow naan nga àtte leen ñoom way indahum te nekk na si ñoom tawra ñoom ñu ngi ak tawra ñu ngi ak téere Muusa ñu bu Daawda ñu bu Isa wa kayfa nan yu xaakimuuna ka nga leen di àttee nangu ñoo nekk jullit seen façon yii wakay fa wakay fa nan yu xaakimuuna ka nga leen di àttee wa indahum nekk na sa ñoom tawraat tawreet nga sa ñoom fii xaa ci biir tawraat hukumullaahi samay àttee nga fa sama maa ko samay wax la hukumullaahi samay àttee nga fa su ma yatawallaw na min ba'di zaalika gis nga gannaaw boo waxee ñoom ba pare dañuy wan gannaaw min bax di zalika la nga waxoon jëm ñu sànn ko ca gannaaw wa ma ulaayika wa ma ulaayika déet ñii bil mu'minin ñi duñu woy gëm de gëmuñu de di ñu wax naan gëm nañu seen téere gëmuñu dara naa naka man yàlla innaa naka man yàlla ansal naa maa wàcca tawraat maa wàcca tawraat fiihaa ca biir tawraat xuddan juba nga ca njub wa nuurun akuk leer yaxkumu doon na ca àtte bihaa ca biir annabiyuun yonente ya ma solo woon sa lañ daan àtte woo allazina aslamoo ñu juboon ñi nga xam ne àndoon na ñoom ñoom lillazina haadoo wa rabbaaniyuun ak lenn seen docteur ya muy seen sëriñ ya hmm? yaraatekat yi ci diine wal ahab wal ahbaaru seeni kilifa ya bi ma istuxfizu ca lañu gàdd la la la lañu lañu sàmmoon ca tawrat lañ ca garde woon maanaam lañ ca xamoon mokkal ko diko ko muy lu jub ñu garder ko ay hafiz a ngi won ci ñom ale hafiz min kitabillah ci téere yàlla yu mu len joxon wa kadu nek nañu alayhim shuhada di sede leg nak dama lay wax leg yow muhammad sallallahu alayhi wasallam fala taxaw nas bu ragal ben doomu aadama bul ragal ken ken ken ken kenn wax saw ni ragal man dong wala tastari wala wala tastaru bi ayati samanan qalilan tidak xanaa ñun la koy wax waaye du muhammad salaa salaam kii bañu gudd foog ma dellu sa gannaaw fala tax saw naas bul ragal benn doomu adama wax saw ni ragal ma man dong man yàlla ya wala tasaro bul jaay bi ayati sama alquran ji samanan prix xalilan budul dara ndax lu mën a doon rek saralo wa man lam yaxkum ku attewul bi ma anzalallahu ci li yàlla wàcce foofu laay ko ñooñu dey hum ñoom al kafirun ñooy way weddi wa katab naa alayhim décrété na wa katab naa wa katab naa décrété naa alayhim si ñoom fiha ca biir téere ba ana nafsa bakkan bi si ku rey bakkan ñu rey la wala ay na ku bënn bët bil ay na ñu bënn bët kooku kaneen ko wala anf bil anfi gémmiñ noonu jam-jam ba nu mu toll ñu natta ko jam ko wal uzna bil uzni nopp bi bu nopp bi la dagg ñu dagg nopp ba kële wasin na wasin na bi sinni bol juróoxi xisaas mbir yu mën a xew dañ koy natt bu dee jam-jam lu mën doon bët ak bët làmmañ ak lépp dañ koy natt yamale ko dam war a yame ah, waaw ñu mu ngi nii ñu bàyyi fi léegi attewuñu si bu ñu si attewoon kon sàccee du ñu bëgg rey nii ak agresseur yëpp ku tëdd amoo benn sécurité balaa mais day ñu naan peine moo mort du koy dégg nangam gis nga lii hmm? boobu mu ngay prévoir sax sa yàlla di muy waxee day dimbali doomu aadama yi ba ñu bañ a yegg si genn mbon mbon yi hmm? faman tasaddaq ku dëggal bii ci lii lii mu dégg àtte yi fa huwa bàkkaat ba wàcc da loxo ñeel kooko wa man lam yaxkum ko attewul bima anzalallahu ci li yàlla wàcce fa ulaayi ko ñooñu day hum ñoom azalimoon ñooy ay tooñkat اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا يا مولاي انك تواب رحيم واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا القوم الكافرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب طب لنا عمرنا ساخر لنا بدنا وهب لنا رشد وتوفيق يا الله دمرا كل أهداء تدور بنا قبل الأصول لنا يا الله يا الله صلى الله على نبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وخادمه أمتي وسلم تسليما سبحان ربك رب السماء والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين توفيق